xamante def na euh, topp nañu depuis 2021 topp nañu aussi ci 2022 bi te ça risque aussi toppaat ñu ci 2023 muy l'affaire Sweet Beauté alors dans les titres da nga bind ni euh, pourquoi procès mënta am dans l'affaire Sweet Beauté waaw li tax ma wax loolu parce que euh, dama lire depuis démb xaw tey sax ñu ne le doyen de juges bouclé na la dossier mhm. fi mu toll nii moom waxi procès la ñuy wax Euh, ma liiraat keneen ku ñu ne dafa jege Adji Sarr mhm. mu wax ne le procès ay acté. waaw ouais, Gabriel Kat. Mhm. très bien maanaam ñoom dañu jàpp ne procès dina am euh, li tax. mais loolu le procès est acté loolu doyen des juges moo ko war a wax wala ñoom ils sont allés vite besogne est-ce seen xam nga depuis le début de l'affaire nit ñi ñu ngi doon wax ñu ngi doon dénoncer l'instrumentalisation de la justice mm-hmm. maanaam ñuy defloo juge yi li nga xamante ne nii mooy seen bëgg-bëgg mm-hmm. parce que bul fàtte ne avant kooku ngay tudd Mamour Diallo mm-hmm. la ñu dégg ci ojo muy wax aji Sarr que bu procès bi passé li ñu waxante woon dinaa ko dinaa ko def. il savait que dina am procès depuis à l'avance. très bien donc ñoom déjà xamoon nañ ne moom ba muy wax loolu mu ngi daan wax procès. Mm-hmm. te li si gën a doy waar mooy xadisi la mm-hmm. ba muy wax ba muy wax bu procès bi jàllee dinaa la defal li ñuy waxoon. Mm-hmm. boobu Ousmane Sonko le doyen des juges dégloogu ko sax. moom naan contrat moral mu ñu lié. très bien boobu le doyen des juges dégloogul Ousmane Sonko. boobu confrontation amagul. non non te pourtant Mamour jàlloo moom wax na ne procès dina am bu procès boobu passé dina defal Adji Sarr li ñu waxante woon. léegi loolu bu ñëwee te loolu ñoom bañ koy wax loolu bañ koy wax je me defoon nañ ci benn émission euh, fii salon d'honneur ma ne moom ba muy wax loolu le doyen des juges si boppam. Mhm. ki nga xamante ni moo yor dossier bi xamul mënuloon a xam ndax procès dina am wala du am. parce que dégloogul woon toutes les parties. Mm-hmm. dégloogul woon toutes les parties xam nga lu tax procès mënul am. lu tax mënul am lu tax mënul am parce que en justice dafa am loo xamante ne nii moom lañ tuddee jurisprudence ci olof. maanaam bu ñu nee ma bu ñu ma jiinee benn affaire ba tëj ma ci yow soo ñëwee def lu mel noonu jarul sax ñuy xool. lan lañ lay tëj ak lu ñu la lu tëj bu nekkee même chose bi la rek lañ ma tëjoon lañ lay tëj mhm. comprendre mhm. loolu mooy waral a un moment donné bu ñuy discuter ci ay sujet ngay dégg ñu ne la pourtant cour suprême année sàngam jëloon na telle décision mhm. parce que dañu jàpp ne bu nekkee ne euh, justice jëloon na décision bële décision boobu mën na ci ñëwaat léegi lu tax ma ne aji Sarr procès mënul am bu jurisprudence amee bu jurisprudence amee ana ban góor mooy nekkati mooy amati sécurité au Sénégal ana ban góor mooy nekkati en sécurité au Sénégal. mën nañ ko defee tam beneen lecture puisque <laughs> les victimes de viol aussi est-ce que dinañ seen parole ça va apporter quelque chose. Euh, non xam euh, waaw xam nga lu tax ma wax loolu. xam nga lu tax ma wax loolu parce que xadisi euh, la jusqu'à présent dama ne woon Adji Sarr lenn la teg ci bi lenn la teg ci table juge mooy kàddoom Adji Sarr ba procès bi commencé ba léegi lenn la am kese kese kese kese kese loo xamante ni ci la fondé accusation yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mooy làmmiñam du témoin du pièce médicale du témoin du pièce médicale bu doon pièce médicale dafa wax xëy na Adji Sarr duñ ko sax déglu bu ko neexee mu def mille et une contradiction du yëngal kenn parce que euh, euh, euh techniquement mhm. médicalement am nañ luy prouver que moom yegg nañ ci kaw mais examen gynécologique bi très bien ma ne bu doon dafa am kenn nit wala ñaari nit yoo xamante ne nii même bu nekkee lislaam sax ñaari nit du doy mais ma ne moom bu ne woon dafa am benn nit wala ñaari nit yoo xamante ne nii nee nañ aji saarkat lu muy wax lu mu wax ne jour boobu noonu def nañ ko ko fa mën naa ne waxuma nekk na de mais mën naa ne su amoon kenn nit ku wax loolu mais aji saar amul témoin aji saar euh, certificat médical bi nee na kenn yeggul ci kawam. donc moom lan la am lu dul kàddoom. certificat médical boobu moo moo setaloon beneen activiste boo xam ne nga accusé woon eh, très bien muy muy Californe. ba coow la jógee ba certificat médical ba génnee ñu ne viol amul wax ji dafa féete boor. après te pourtant bii. Mm-hmm. certificat médical génn na te coow ngi continuer ba léegi. Hmm? Mm-hmm. léegi ma ne bu nekkee Adji Sarr moomu kàddoom kese kese kese kese la am kàddoom kese tey won na sénégalais yi ne. kàddoom boobu kese mu amoon depuis le début ba léegi mais elle ne vaut rien du tout moom wan na sénégalais ne kàddoom boobu nga xamante ni moo tax dossier bi continuer ba léegi elle ne vaut rien du tout te xam nga loolu wanoon nañu ko wanate ñu ko mais juge bi mos ci woon a intéressé wu parce que audio wu Mamour Diallo yi nga xamante ne nii mois d' avril la fuité woon ah bu doon ci la ñu sukkandiku. ñu dégg Mamour Diallo muy wax Adji Sarr que bu procès bi passé lu ñu diggante woon dinaa ko def xam nga loolu doyuloon juge bi parce que audio yooyu juge bi sax lijjantiwu ko mais audio MC yi nga xamante ni man depuis ñu ne dañ koo woolu laa ne juge bi dafa dégg ñu naan audio audio dafa bëgg a xam ndax wax ji ci biir grave na ba mën a seetal Ousmane son ou pas loolu moo tax mu bëgg a déglu MC Niass. kon woowu ko pour pour leeral. mais aussi il instruit à charge et à décharge aussi. non à décharge non décharge moom. c'est à c'est à c'est c'est à c'est à revoir pardon mais li nga xamante ni moom c'est constat hmm? li nga xamante ni mooy moom c'est constat mooy que Adji Sarr ba ñu ko woowee bureau doyen des juges reconnaitre na ne. lii nii ñuy wax moo ko wax. même après génn na waxaat leneen. même su génnee waxaat leneen mu dolleeku ci waxam yi nga xamante ne nii daraan varier tout le temps. waaw tout mm-hmm. daraan varier tout le temps parce que xam nga te loolu sax à un moment donné xadisi la piège lay doon pour ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo far ak Ousmane Sonko. comment ça piège lay doon. parce que Adji Sarr. xam nga ñan la leeral audio mii xam nga ñan la leeral ñu doon continuer ñu doon continuer di gëm ay waxam ñi doon continuer di gëm ne moom ak Ousmane Sonko xëy na am na lu ñu seq ñooñu la Adji Sarr leeral mais ñun ñi nga xamante ne ni depuis ba Sidi Ahmed mbay waxee ne dama doon xaar pour ñu violer ko après ma yóbbu ko ñun ñun depuis boobu la ñu commencé douter ñun Adji Sarr amul lu bees lu mu ñu indil te sax ce serait très grave ñun ñu ñun ñuy gëm ne. moom ñooñu muy wax ne seq nañ ak moom dara. liste boobu te loolu mun na nekk dëgg. non non comprendre donc ño moom ba mu waxee ci Ousmane Sonko ñu ne kii li muy wax teguwul fenn. waaw ci la waroon a jàppee ne nit moom bu waxee cent. Hmm? Mm-hmm. quatre-vingt-dix yi nekk ay fen. Mm-hmm. mën nga wax ne fenkat la. waaw cohérence pour cohérence la loolu a def. très bien mhm. léegi nag comme moom au départ nee nañu la wax si Ousmane Sonko du dëgg bu ñëwee wax si ñeneen nit tamit bu ñu ko gëm dans ce cas précis ñi Adji Sarr di leeral que ci complot la ñu nekk mooy ñi nga xamante ni ñoo daan continuer di ko défendre di naan Adji Sarr kat dafa am ay àq ak yelleef yoo xamante ne nii dañ ko ko mhm. war a sàmmal. Mhm. mais pour ñun ñi nga xamante ni dañ doon def depuis le début que lii muy wax dara du si dëgg. lu mu wax nii eh, pour man euh, euh, euh, non événement la. alors yaa ngi wax sànq nga ne le doyen des juges en compte audio yi njëkki avril yi mais lu tax nga war a rafet njoo xel bu dal ba ne procès du am. léegi bu nekkee nee naa Adji Sarr kàddoom kese la basé wu bu nekkee ne juge bi nangu na Adji Sarr basé wu si kàddoom boobu nga xamante ni tey mu ne dafa vert. suba mu ne dafa xonq gannaaw suba mu ne dafa bëla mu mm-hmm. basé wu ci wax joo xamante ni day def nii pour yóbbu Ousmane Sonko procès mais demain yow soo ñëwee nga ne man Birame Wathie daf ma def lii mm-hmm. soxlawoo papier soxlawoo témoin sa kàddu doy na la d'autant plus que sax yow yaa gën a euh, dëggu Adji mm-hmm. moo tax ma ne la ab jurisprudence lay doon donc euh, l'histoire judiciaire day retenir que am na une fille bu dem déposer ji plainte au niveau devant la justice. ba ñu ko ne indil ses preuves amul aucune preuve te waxam tey danaan lii la suba mu ne lële. loolu ci gën a graaw sax mooy dañoo criminaliser viol donc non seulement góor yi sénégalais léegi nekk nañu les hommes de manière générale fu dëkk fii ils sont danger mais aussi les les victimes de viol dañ dem ba seen kàddu sax ni ngi dootuñu leen gëmati. non mais attends non dañ leen gëm. en tout cas en tout cas parce que léegi dañ jigéen dañ ko jël comme arme dañu jël viol def ko comme arme ku leen xosi sax ñu ne diw daf ma waaw alors que y a tellement qui qui qui et des aussi qui sont abusés waaw mais xam nga bu boobaa dañuy jàpp ne qui peut le plus peut le moins mm-hmm. bu nekkee ne yow basé woo si dara te pourtant yóbbu nga dossier justice mm-hmm. kon bu ñu leen wonee gàjj-gàjj mhm. war ngaa mën a yóbbu dossier bi justice parce que Adji Sarr gàjj-gàjj sax wanewu ko mhm. dégg nga euh, Alfousseyni Gaye mhm. dernièrement lu mu si wax mu ne ba muy recevoir Adji Sarr jigéen jëmu gis nekkul koo xamante ne nii dafa tiit mbaamu mu jaaxle li nga xamante ni dañ koy nemmeeku ci jigéen joo xamante ne nii dañ koo sàkku ci lu ko neexul comprendre donc mu nekk euh, pour man ay éléments yoo xamante ni tey mooy wane ne juge bi su yóbboo dossier bi justice maanaam dañuy dépasser cadre Ousmane Sonko ak Adji Sarr nekk ci cadre général boo xamante ni personne n'est plus en sécurité mm-hmm. léegi nag est-ce que loolu politique jar na ko c'est la grande question xam nga man bi ñuy wax mm-hmm. newoon naa euh, dañu yëkkati dossier wu fo force spéciale yi. Mhm. parce que gis nañu ne dossier Adji Sarr dara nekku ci xam nga man loolu laa waxoon. Mhm. te dossier Adji Sarr depuis le début xanaa de premier jour yi nga xamante ne nii xawoon naa ci douter mais depuis Adji euh, Ousmane ko def conférence de presse am Adji Sarr topp ci ba léegi. def la pour defatuma amatuma ci doute. Mhm. ba léegi nii amatuma ci doute léegi bu nekkee ne ci loolu le juge bi. bëgg a wu yóbbu euh, euh, euh, dossier bi justice non seulement dina def loo xamante nii tegu ko fenn. Mhm. mais quelque part tu te président Macky Sall dafa am dafa il est dafa am problème de temps dafa am problème de temps. Mhm. tey jii nii c'est comme si ñoom dañu jàpp ne dossier farce spéciale boobu. Mhm. nekkul loo xamante ni ci un an bii war nañ cee mën a topp Ousmane Sonko. ba di ko xañ mu présenté wu en 2012. léegi loolu jaral leen ñu jël dossier boo xamante ni benn feuille sax nekku ci ñu ne dañ koy yóbbu tribunal pour procès am parce que Macky n'a plus le temps. léegi nag bu boobaa nekkatul problème Ousmane Sonko Adji Sarr nekkatul problème waa Pastef parce que wax naa la ko nee naa la lii ça met en insécurité. Mm-hmm. tous les hommes parce que ku ne mën nañu xëy ne la yaa def lii. Mm-hmm. sans aucune preuve. exactement. sans aucune preuve léegi bu boobaa nekkatul problème Ousmane Sonko tout simplement loolu problème mu tous les sénégalais yoo xamante ne nii. dëgg justice très bien dëgg daf leen a soxal parce que man je ne suis pas à l'abri Moustapha Diop n'est pas à l'abri keneen ak keneen il n'est pas à l'abri te loolu noonu waruñoo nangoo jël risque yooyu tout simplement parce que dafa am un candidat boo xamante nii ñoom jàpp nañu ne warul bokk à des élections parce que nee naa question morale bi nga xamante ne ni souvent ñoom moom la ñuy mettre en avant. Mhm. loolu sénégalais yi répondroon nañ ko depuis longtemps ah bu ñuy fal Ousmane Sonko di ko falaat. loolu ñoom wane nañu ko. léegi bu nekkee ne ñoom à travers maintenant ce dossier xaaratuñ ci yàq deram mais dañ ciy xaar am lu leen permettre ñu écarter Ousmane Sonko à la présidentielle de deux mhm. devient un autre problème te loolu je pense que. <laughs> warul warul nekk lu ñuy lu ñuy fowe vraiment vraiment te ça risque vraiment yëngalaat réew mi te on pas besoin de ça vu contexte bi ñu nekk économique nit ñi sonn nañu dëkk bi maintenant donc euh, Mame Birame Wathie dafa mel ni nga xanaa di di di souhaiter ñi ñu doon suivre rek jàpp yaakaar ne li ñu doon suivre jëlee nañ ci njëriñ bu bari uh-huh. xam nga Sénégal moom y a de bien pensants nga xamante ni soo leen dégloo mm-hmm. lu bëri loo bëggoon a def sax da ngay jàpp ne quelque part. soo ko defee dañ la ci euh, xeeb. wala ñu euh, euh, wax la loo xamante ne nii. Mhm. du doon lu lay lu bof je sais pas comment expliquer ça mais en ah. tout cas li nga xamante nii moo constat mooy que opposition bii nii. Mhm. opposition bii nii ni leen Macky Sall di noggatoo. Mhm. moo yéeme. opposition bii ñu ngi jàpp di dugal ci bopp waa Pastef que. ñoom ñoo changé politique bi ñoom ñoo fi dugal loo xamante ni amu ci yoon ñoo am discours la di expliquer yu bëri yoo xamante ni bu xamul dara ci histoire politique gu Sénégal da ngay jàpp ne dëgg la. mais une alors mais une partie de l' opposition ñoom dañoo démarqué wu ne ñoom ñooy l' opposition républicaine dafa mel ni opposition bi daal y' a une opposition dans l' opposition. <laughs> waaw non c' opposition boobu nag. opposition dañuy naan yeneen coté dañ lay naan ñun ñooy. opposition bi euh, moo lëndëm moo lëndëmal carte gi. waaw ñoo lëndëmal carte gi te tey jii nii. te en tout cas ñoom opposition boobu ngay wax bu doon dañu sukkandiku ci l'histoire de leur leader. muy Abdoulaye Wade. Mm-hmm. opposition bu mu daan def mais c' était pire c' était plus violente que opposition bu ñoom Ousmane ko di def. Mm-hmm. te pourtant tey comme nu ngi koy waxee noonu ils te disent que dañuy def une opposition responsable républicaine loolu ay caaxaan la en réalité ñoom ñëpp ñoo ci benn cas ci benn cas bi bokk.